asalaamaaleykum euh, suñu mbokk euh, internaute euh, Euh, yoonu ndam TV euh, di leen ziar di leen nuyu bu baax a baax a baax a baax euh, donc ñu ngi fi tey ci fi fii ci ci ci ci Malika wet quartier quartier Ndiago ñu seet si su suñu mbokk bi ki nga xam ne kenn dootu ko présenté fii ci fii ci Malika donc il est connu partout donc mën naa ne di donc di suñu émission Buzz Sport donc nit kooku. kooku day yëngu ci ci ci ci ci wàllu sport moo tax ñu seet si ko tey pour waxtaan ak moom lu lu lu euh, ci ci li mu yëngu ci sport surtout euh, ci ci wàllu ndaw yi donc ñu bàyyi ko tuuti ñu bàyyi ko mu nuyoo donc balaa ñoo dugg ci émission bi. salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah maa ngi lay ziare bu baax a baax. waaw donc di di di delloo ziar euh, euh, di di la nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax euh, donc ñu koy ñu koy ñu koy woowee Moussa Yafine donc Moussa Yafine ñu ñu gis ne chaque année da ngay faral di organiser tournoi bu bu bu bu rëy bile ci ci wàllu ndaw ñi donc Moussa Yafine lan moo la xiir ngay organiser tournoi bi ou bien lan moo la frappé surtout ci côté xale yi nga leen di organiser tournoi bu rëy bile. waa salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di ziare bu baax a baax yéen waa yoonu ndam TV euh, di nuyu sénégalais yëpp euh, di nuyu kilifa diine yëpp di wax ni tamit euh, suñu mbokk chrétiens yi seen feetu démb bi ñu ngi leen ci souhaité ñu yàgg koo feete ñu yàgg tamit di ko def xam nga ñu fekkee ko ay déwén yu bëree baree bëri ànd ceeg wér gu mat sëkk nag. di wax ni rek am na ñaari ndaw yoo xamante ni tamit euh, ñu ngi wàcc liggéey te ñu bokkoon si ñun euh, kenn ki dëkk cité Sonatel muy Laay Sagna euh, ak ki nga xamante ni moom moo nekkoon quartier muy Kamu donc ñu ngi leen di ñaanal ñoom tamit yàlla xaare leen àjjana suuf sedd seen kaw di nuyuwaat ñi nga xamante ni tamit. ñoom ñoo nekk fii comme ay autorités yi nekk Malika ak euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu staff ñun waa Yafine production donc euh, di wax ni rek sa question am na solo trop euh, tournoi bi li waral ñu dugg ci mooy que ñun ay artistes lañ woon quoi man naa mën naa ne dañ daan def musique ay rappeurs lañ woon bon ñu amoon objectif ci carrière boobu objectif bi nag moo nekkoon. comme da ngay faral dañuy faral di wax ni rappeur bi maanaam daf fi wa nekkal waa mbedd mi ñu nag comme ay nitu mbedd lañu woon bon ñu ne naka la ñuy def ba sensibiliser waat ñun suñu askan bon euh, loolu moom moo indi ñuy créer di créer di xool ay projet ba daj tournoi de foot te bu nekk tamit ci suñu deret ñu bëgg football doon ko def balaa tawat bii di am si ñun bon ñu gis di xale bi boo jaaree ci football bi mën nga ko sensibiliser ci lu bari ndax lu lu mu bëgg la donc loolu moo waral ñu am initiative wu teg tournoi de foot Yafine Production waaw euh, loolu am na solo trop am na solo trop parce que gis nañu tournoi bi euh, c'est saa saa yoo lañ ko organisé euh, di di dina tënk lu bari ci ci ci ci ci ci ci nu ci xale yi parce que xale yi dina dina tax doot ñu mën a dem kii plage xale yi dina tax doot ñu mën a dem mbëbës donc donc gis nañ ne tournoi bu am solo ci ci wàllu ndaw ñi ci wàllu xale yi donc ñu gis ne Moussa Yafine yaa donc yaa ngi toll ci septième édition. ci ci tournoi bu ren euh, euh, euh, ñi wax ne ñi wax rek ne tournoi bi am na ampleur bi nga xam ne bu mucc ay donc je pense que war nga ci am ay jàngat pour pour pour ñu gën a ñu gën ko yaatal ñu gën ko yaatal parce que tournoi yi fu mu ne nii am na ampleur boo xam ne bu bu bu doy waar. waa Alex kontaan naat bu baax ci li nga wax. Euh, man moom damay nekkoon man gagné naa sama objectif quoi comme yaa ngi naan su tournoi bi amee xale yi duñ dem géej duñ dem mbëbës xam nga ah da leen di tënk fii jàppale leen ti vois donc man dama koy rafetlu quoi comme yaa ngi gis loolu. en plus comme ni nga wax septième édition yaakaar naa ni lu commencé benn dem ba juróom-ñaar moom mu ngi yóbbu boppam donc euh, loolu daal euh, xam naa ni dañ koy sante yàlla suñu boroom di wax ni nag Alex xam nga. fépp fu ñu waroon jaar pour tournoi bi avancer àgg fi mu war a àgg yaakaar naa ni dem nañ fa waaw bu ko fekkee ci côté euh, autorités yi la ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo waroon teg lu mel noonu euh, pour que ndaw ñi euh, mën a gis seen bopp ci seen seen nguur yaakaar naa ni ñooñu àgg nañ ci ñoom te wax nañ leen ko du sax àgg si ñoom ñoom ci seen bopp gis nañu ko ñu ngi ciy teg seen i bët seeni doom ak seen i jarbaat. ak seen i xarit amul kenn ku musul participer ci tournoi bi te ñoom xam nañu tournoi bi nekkatul tournoi wu Moussa Yaafiné nekkatul tournoi wu Yaafiné production tournoi la boo xamante ne tey commune Malika daf ci war a bénéficier wu euh, c'est pourquoi ma wax la loolu ndax tey jaxaay man mën naa ne lu mat ñetti at ngi nii ñoom ñu ngi ñëw di participer daanaka sax seen équipe moom moo jël euh, fair play bi en plus euh, benn brak ñaar jóge nañ fa yëmbal juróom jóge na fa comprendre nga xam nga tey boo seetee kon tournoi bi mu ngi génnee boppam xale yi ñoom ñëpp ñu ngi yàqamte tournoi bi tournoi bi tey su ma waxoon tey huitième édition suba lay ubbi sama kër day fees dell dell dell dell ba ba locataires yi sax ñuy mujj di mer quoi kon donc loolu noonu tey bu ñu ko gisee ci commune monsieur le maire euh, Momar Talla gajaga wala directeur programme euh, euh, directeur stade bi bon Euh, Khadim mbay wala ku ci mel ni mm, euh, président zone bi euh, muy Ahmed Ba ak ñeneen i ñeneen i acteurs de développement yi fi nekk ci côté sport war nañu mën a gis affaire yi ñoom ñi boppam ñu jage ñu bañ a xaar Moussa yaa fi ne naan leen nangam ak nangam ak nangam ñoom ci seen bopp war nañu mën a taxawu mbir yi jël ko yóbbu ko ci stade yi valoriser mbir yi donc ñun li ñuy def moom mooy li ñu mën a def mooy def ay demande demande stade bi wala ñu demander monsieur le maire pour que nu mu ñu utalee budget bu baax boo xamante ne dañu mën a jàppale xam nga loolu lañ mën a def te def nañ ko suñu décharge yëpp ñu ngi ci biir euh, suñu ñu ngi ko denc ñu ngi ci biir kër yi kon donc effort yëpp def nañ ko leneen li si def nag moom Alex ñun du ñu sonn ci dara ndax xam nañ ni comme liñ koy waxee rek ah, xale alalu yàlla la yàlla moo koy taxaw xam nga ku déparé huit équipes deuxième édition nga ñëw nga def seize équipes troisième édition nga ñëw def vingt quatre équipes quatrième édition nga ñëw def trente deux xam nga cinquième édition nga ñëw def euh, euh, trente deux plus seize trente deux ci minime euh, trente deux ci benjamin seize ci li ñu koy waxatee ci ci ci minime ñaari tournoi donc loolu ku koy def septième édition bii ñu nekk nii amoon na ay match barrage même sixième bi sax amoon na match barrage pour booy yi mën a bokk ci compétition bi maanaam dañuy dem ba ëpp ay trente trente six équipes et quelques léegi du ñu mën a résister xale yi parce que xale bi tey bu ñëwee mu jox la liste mu ne Moussa dañoo bëgg a bokk yërmande day daw parce que doo xam fu mu jógee léegi nag bu fekkee dafa fees doo da ngay obligé wax ko eh, eh, dugalal sa liste dama ci gars yi ñu enregistré enregistré la mais nag fees na match barrage ngay dem mu nangu. ñu dem match barrage kon tournoi bu dem bay am ay match barrage pour ngay bokk ci compétition 32 équipes loolu noonu xam nga ni xajatul xajatul xajatul ci benn terrain comprendre nga waaw li mu xale yi tey Mamadou Faye tey bu fi nekkoon moom mooy secrétaire label bi dina la wax lim bi nu mu toll ci ay xale xale yooyu yëpp tey ñu nekk sa commune yow nga yéen ngeen di ay dirigeant yéen ngeen di ngeen di xool suba ngoon guddeeg bëccëg ngeen mu leer leen nit ñi ñun mënuñu koo tëgg keneen ak keneen ku am xaalisam mënu koo tëgg mais ñii mun nañ ko tëgg kon nag ñii jar nañu jàppale bu ñu xaarati ñii di di am lu kii kon donc euh, su ma déggee si question bi moom mooy euh, euh, mooy war nañ ko mun a yóbbu fu fu gën a kawee fii nii léegi nag li koy yóbbu nag mooy li ma la wax rek yàlla suñu borom moom mooy ci ànd pour loolu mun a antu waaye bu dee côté démarche lépp nuñ doon defee démarche def nañ ko pour que ñu gën a valoriser affaire yi donc ñu ngi ñaan nag autorités yi. ñu jàppale xale yi waxuma yaa ne production comme ni ma ko waxee woon keroog buñ ñu jàppale bu ñu may dërëm ñoom buñ ñu jox salaamaaleykum ñun am nañu ñu fexe ci li ñuy yor ak suñuy pax bi yi ñu am ñu fexe ba lijjanti fa li ñuy lijjanti ñëw taxawu xale yi waaye li ci des nag mooy fu muy kawee di kawee ba mu dem ba ci kaw loolu noonu ñoom ñoo ko yor ñoom nañ ko nañ ko nañ ci jàpp après tournoi bi mun a mën a mën a avancer xam nga ni tey xale bu doon football ba si yàgg gis ngeen football. violence bu dul jeex la te ñun suñu tournant boo fa ñëwee ah pour mu am violence dafay dafay maanaam du du yomb du lu yomb xanaa benn équipe boo xam ne bu bees la xamul dara ci tournoi bi mu ñëw fa rek indi fa benn boucan bu ndaw après mu dem mais boo xamee tournoi bi wallahi azim ak naqaram ak méttitam noonu lay ñibbe parce que day comprendre xam ne objectif bi moom mooy fair play. gis nañu tamit tournoi bi donc il faut que euh, mu mu gën a organisation bi mu gën a yaatu. ci donc ci lan mu gën a professionnel tournoi bi tamit bëgg nañ mu gën a professionnel donc bu ma nee prof euh, professionnel mooy ça veut dire que euh, war war nañ ko mun a fubalee ci espace boo xam ne euh, ki espace bi nga xam ne donc dañ koy cadré ba nga xam ne même même ba ci match de poule yi ni nit ñi nañu mën a ñëw toog di seetaan donc avec sans problème mu mu mu toujours sécurité bi accompagner leen surtout même ki pourquoi pas ñu jël ñu jël les les arbitres professionnels arbitres yi nga xam ne ñoom ñooy arbitré ki mm-hmm. ki nawetaan sànni mhm. donc donc je pense que mhm. euh, euh, tournoi bi euh, mhm. yéen a jëlee arbitre arbitre nawetaan kii professionnel pour ñu mun a ñu mun a canaliser match yi waaw bon Alex bon dugg nga fu tamit fu am solo tamit quoi ndax boo seetee loolu yëpp sax programme woon nañ ko fii même may arbitre yi mais temps temps bi ñu defee promotion finale bi moo gàtt lépp xaju ci woon maanaam même trophée yi sax ci jour bi lañ ko dem jëndi jour final bi ci matinal bi boobu lañ dem jënd ji eh, trophée yi parce que nu mu demee la ndax boo seetee ñun bi ñu demandé eh, stade bi def depuis le 4 novembre lañ ko demandé bon bi ñu demee ba le 9 lañ ko rappelé directeur bi ñu ko ko rappelé moom gis nga lu mu ñu wax daf ñu ne moom daf ko fàtte woon waaw mm, bon. Euh, automatiquement bon ñu découragé ci affaire boobu noonu quoi parce que jàpp nañu date bi date la bu bu jar la waaw du date bu ñu war a fàtte bon ñu bàyyi nit nit la quoi bon bi ñu dajawaatee mu ne ñu stade dafa am nawetaan bu fa am donc ma ne ko euh, loolu laa doon xaar quoi parce que man dama bëggoon xam quoi pour ñu mën a def suñu promotion quoi après man ma daw ci biir une semaine boobu noonu ci lañ def suñu loolu yëpp kon soo gisee yenn yi motul sax mooy arbitre yi ngay wax ñu am ay arbitre yu professionnel xam nga ju cadre stade bi et loolu yëpp bokk na ci euh, euh, promotion bu gàtt boobu ñu def donc di la wax ni rek Alex incha allah muy jàpp nañ ci ñoom fa xayrun loolu seen ndam la ñoom quoi. muy jàpp ñu ci incha allah Alex tournois bii nii dina dem foo xamante ne ñoom ci seen bopp dina leen gën a jaaxal yow Kalidou Koulibaly fu mu nekk Cheikhou Kouyaté nekk fa yow ñu toog ba lay yónnee ay vidéo ci tournoi bi yow yow say autorité yëguñu si dara. ak Assane. waaw Assane Diouf ñu yónnee Cheikhou Kouyaté moom dafa def vidéo moom. vidéo la def di ñaax booy yi di leen encouragé naan leen nañ ñu topp ñun nañ ñu déglu liñ leen di wax ñu koy def. te nag ma wax la benn affaire Alex. ñun dañuy organiser des fois ut ay parrain def lu ñu war a def yëpp mais boo gisee sixième édition bi xam naa bu ñëwee dañ ne ñii lekk nañ ay millions ay millions la ñu lekk waaye nag ñun suñuy dem suñu demee lendemain bi dañuy poñe man yóbbu nañ ma fi police keroog ci damm ñaari siège ñu ne léegi benn bu nekk quinze mille francs laa koy fay mënoon nañ ko sax mais diñ ko waxee la ñu nanguwul siège quinze mille francs xam nga amul fenn 16 yi am nga ne du dal 15 bi. donc euh, euh, euh, bu ma comprendre. ci ci ci sa biir wax. donc ça que tournoi bi yaa fi production da koy organiser ngir xale yi. waaw mais mais organiser ko pour pour pour ut ci dara pour pour pour moom mba donc donc je pense que waa Malika tamit war nañ mën a xam loolu. li li tax nga yaa fi ne production di di organiser tournoi bi pour xale yi. waaw tey tey ma leeral la nag lu leer nag lu naas nag foofu noonu foofu ak a jaral leeral quoi. xam nga tey waaw ah, parce que il faut leer il faut leer kii ne donc euh, du utal leen ci dara donc vous organisez donc ce tournoi uniquement pour canaliser les les enfants merci beaucoup xam nga suñ doon wut suñ ci doon wut dara parce que tey doone ne man damaa bëgg jàppale xale bi ci éducation bu baax bi dama ko bëgg a jàppale ci fair play bi dama ko bëgg a jàppale yaa ngi dégg xam nga ci yeneen ak yeneen ba noppi ngay lekk xaalisam kon da ngay wax lu la neex rek yaag yaag yaag yàlla suñu borom di ngeen ko digaale ji loolu moo tax nag gis nga man cinquième édition ak sixième édition ak quatrième defe naa lañ leen commencé wax da ngeen di jënd licence te loolu li ko waral moom mooy trafic yi ñuy def ci biir ñun première édition deuxième troisième laajal ñi laajal staff bi man maay génnee sama xaalis sama poos wallahi azim maay génnee xaalis sama xaalis man ne ma jox xolo entraîneur yëpp ay 1000 francs 1000 francs man ne dama leen ngeen photo seen booy yi ngeen indi ko imaginer loolu ma defaral la licence jox la ko doo indi salaamaaleykum mais bi ñu mee ba commencé def njublaŋ ci biir ay jaaru teppi taf ak nangam nangam après ci la gars yi indi nag licence bi benn bu nekk dañ koy jënd. 250 wala 150 wala yu mel noonu comprendre nga léegi suñ ko dajalee après ñun ci la ñuy mën a ci lañ leen mën a defal yenn yi comprendre nga fi ma waxee mais ñun suñu paree ci tournoi bi yàlla day xam na ni dañ ñuy poñe da ngeen ñuy fay da ngeen ñuy fay da ngeen ñuy fay ay bor moo ñuy topp mais kenn du ci xam dara. kenn euh, du ci euh, xam euh, dara donc ça veut dire que tournoi bi koy organiser ci seen propre moyen. lu leer léegi nag mën nga def ay parrains comme bee passé ku ci mel ni Ahmed Ba bon ak Aline Mbaye par exemple dama lay jox exemple ci ñooñu noonu tey dinañ la indil enveloppe Aline Mbaye keroog indi na fi benn cinquante mille boole ko benn coupe xam nga Ahmed Ba yónni na délégation jox ñu benn vingt cinq mille. Euh, Ahmed Ba président zone waaw bii passé bi parce que dañ ko parrainé woon non bii la sax astaghfirullah waaw bii la bii la bii la bii ñu nekk nii la sax maa ngi jégalu bii ñu nekk nii la xam nga ba euh, Ahmed Ahmed Diagne aussi dafa nañ ko parrainé moom bu ñëw indi 20000 comme daan nga fi may waxee am na ñeneen ah bu ñu limee dañuy juum waaw bu ñu limee non dañuy wax rek tuuti amul barke am solo dara tuuti wu fi tey bu fekkoon yow nit ku nekk tey ci biir Malika indi na vingt 20000 francs ñun fan lañ jëm waaw dañuy encaissé te bu ñu encaissé xale yi dinañ kontaan. Lat Diop indi na indi na moom tamit indi na benn enveloppe xam nga def ci trente mille francs de xam nga lu tax ñu koy wax noon nañ ma ne enveloppe enveloppe enveloppe rek noppi mais soo gisee ñuy wax somme bi pour que ñu ñu xam ni liñ ñu jox li dañ koy wax ba population bi yëpp xam ne indi ngeen ñun suñu staff muy ballon yi muy arbitre yi muy ñi fa muy baas yi muy seize promotion bu ñu def parce que trois mois la tournoi tournoi bi di durant ah. depuis novembre la ñuy commencé di def inscription yi bu ñu demee ba décembre bi le 26 le 26 décembre le tournoi bi di commencé ay fin janvier lay jeex imaginer loolu 3 mois lañ koy préparé ñun ñu nekk 4 personnes yaa yaaf ne production 4 personnes lañ nag de 4 personnes su ñu amee organisation la ñuy yokk éléments yi. mais mais mais est-ce que mënoo leen euh, euh, am kii euh, créer staff boo xam ne bu disponible. pour pour pour tournoi bi. waa non non non ko xam nga lu tax. Mhm. parce que sénégalais sénégalais dafa bëri ay idée quoi xam nga fii dafa bëri ay entraîneurs. mu bëri ay ay ay ay ay président xam nga fii bëri ay mbër xam nga dangay toog sa télé di seetaan nga gis ku mel ni Alioune ko koo xamante ni mu ngi lekk lu dul jeex ci sport nga ne ko waaye xamul dara waaye nag génn waaw kii na bàyyi waaw xam nga saaga ko kon yow yaa xam dara da ngay gis waaye Macky Sall lañ la fi def waaye Ousmane Sonko daf ñuy lakkal mais lan moo tax parce que yaa ko man loolu moo tax nga koy wax soo ko mënul woon soo ko dàqul woon loolu doo ko wax. est-ce que may waxee loolu moo tax nag man man bëgguma lu bari boo seetee même ba ci biir alxuraan sax yàlla fu mu waxee ak sara rek la yàlla mun na la ciy teg wala laa yaaqiluuna wala laa yuminuuna wala laa yubsiruuna loolu la ci bari teg su ne ñu gën a bëri rek négatif la ciy teg xamuñu mënuñu gëmuñu yooyu la ci bëri di teg kon lu gën a bëri amul solo gis nga tuuti bu am barke moo gën lu bari te amul barke. donc ça veut qualite que soxla merci beaucoup moo tax léegi léegi tournoi bi yaa ngi naan. neex na def na nii def na nee man woo ñi ma woo ci ñi ma woo di ma encouragé dañuy wax a wax a wax wax ba seen crédit jeex ndax tournoi bi niñ ko niñ ko gisee ñoom te man xeeb naa ko dama mer man bi ma delloo affaire bi dama metti quoi maanaam nu ma nu mu waroon mel man dama jàpp ni melu ko quoi dama daf ma metti mais ñooñu noonu di wax loolu kon am na lu ñu gis ci tournoi bi mais cinq personnes ñëw organiser loolu kooku noonu bu renforcer beneen affaire beneen affaire lay doon donc xam nga di gàttal ñun mënuñu yokk ñu cinq personnes lañ ñun rek ñoom ñoo koy engagé suñ demee nag ba nga xamante ne war nañ mën a organiser yeneen tournoi ñu woo ñeneen ñi ku ci nekk sotti ci xalaatam ku ci mel ni Alex wala keneen ak keneen koo xamante ne xam nga sport ñu woo la ñu ne la a ah, ñun de ñu ngi waajal huitième édition parce que mos naa si def benn euh, séminaire cinquième def naa ci séminaire ma woo sportif yi nekk yëpp ñoom Yero ñëwoon nañu ñoom Baye Mbour ñëwoon nañu xam nga ñoom Maguette école ah, football yi donc boobu maa ngi ci woon. mooy école Sanka. si école Sanka. ñëpp lañ woo sportif yëpp na leen am na benn centre de formation sport étude bu ñuy créer li ko waral nag moom mooy édition bii ñu jëm dañoo bëgg a recruter yenn boo yi xam ne amuñu ñu defal leen ñu defal ñu jàppale leen seen seen parents yi amuñu. mënuñu leen yóbbu ci centre formation yi mënuñu leen yóbbu di leen fayal kon ñun loolu la ñu bëgg récupérer xale yooyu noonu xam nga génnee seen talent jàppale leen ci njàng bi et tout donc centre de formation boobu la bëgg a créer mais mujjul woon am suivi parce que dafa am ay yoo xamante ne doole la laaj te doole jooju amuñu ko. ça demande des moyens quoi. voilà demande des moyens loolu moo tax ba léegi ñun defuñu ko mais idée baa ngi fi ba léegi nii kon boo seetee ñun ñu ngi woote. ñu ngi woote gars yi nañ ci ñu ngi ciy sotti seen xalaat. mais mais est-ce que il ne donc euh, te te euh, heure bi jotul euh, tey tournoi bi donc ngeen di ngeen di woo ay superviseur Ah, ay superviseur pour ñu ñëw di assister euh, ci ci ci ci ci ci match de poule yi balaa final bu ko defee chaque match euh, chaque match ñoom ñu ñëw superviser xale yi ñu xool les meilleurs ñu mun leen ñu mun leen a euh, yóbbu ci ci centre yi muy jàmbaar. génération foot Dakar Sacré Cœur ak yooyu. est ce que est ce que kii xalaat ngeen ci. merci du xalaat nañ ko de dox nañ ko te damay cité ah man damay wax di ay tour de man du fi nekk naan di junj dama lay wax ay tur. parce que il faut que superviser il est di ñëw. non taxawal rek dama lay expliquer ku ci mel ni Baye Mbour moom mooy centre de formation euh, fële. Euh, AS Malika bon ak ñoom laay mun naa ne sax samay partenaire dañ dañuy participer ci tournoi bi ba le passé ñoom ñooy joxe ballon yi ak polo yi quoi comprendre nga mais chaque jour ma wax leen ko indi leen benn table ngeen toog fii. ngeen superviser avec xam nga booy yi mun naa am sax ngeen gis si booy yu am talent ngeen recruter leen dama koy wax waa olympique de Malika saa yu ñu taxawee ñoom it suñu partenaire lañ signature la ñu mën ñun ak ñoom. aussi le nouveau centre. Euh, voilà kii MAF. Euh, euh, waaw Malika Académie MAF aussi MAF aussi kii nu mu tuddati Lamine Koma. moom laa gën a jege sama frère la maa ngi koy nuyu de passage. xam nga y' a Kempes y' a Doudou Kébé. voilà voilà y' a Kempes Kempes aussi waxtaan nañ ci lu bari bon moom ci boppam. xam nañu tournoi bi Lamine moom dama ko koy wax li ci gën a bëri baay ñëw leen ñëw leen ngeen toog ngeen assisté ngeen xool keroog sax mën naa ne ci stade bi fekk naa ko foofu ci ginnaaw caaxi ma at ko ko mu ne Moussa ñun ñooy ñun dinañu ñëw incha allah parce que loolu suñu intérêt la ñun. xam nga intérêt médical la tamit quoi ñun dinañ ci veillé naa ko wax gars yi naa la dugal sax ci groupe bi donc ñun démarche bu ne ñu ngi koy def pour que tournoi bi gën a mën a am doole. mais même ba ci final bi. même ba ci final bi est-ce que est-ce que est-ce que yéen tamit leen déplacé wu dem ba jàmbaar euh, euh, ou bien dem ba génération foot ou bien dem Dakar sacré mooy yeneen centre yi ngeen ngeen ngeen waxtaan ak ñoom pour pour ñoom ñu mun a délégué sa euh, délégué kenn ñu ñëw super def supervision surtout ci final bi. c'est je pense que loolu c'est possible. c'est important xam nga man damay wax damay wax ni toujours. Euh, maanaam diw baax na diw baax na yàlla na fekk mbokk yee ko wax ñun ay doomu Malika la ñun loolu lañ jàppee suñu bopp te ay sportif ngi fi te ay ponkale ngi fi xoolal maf li mu fi def keroog yow yow bi nga créé yàgg bi nga créé centre formation bi yàggul mais gis nga fi nga àgg tey ay ponkale fi nekk Malika football moo fi nekk mais pourquoi ñun ñuy organiser lu mel nii ñun ñi dem xooli ñeneen ñooñu ñoo waroon nekk njëkk a nekk suñuy partenaire bu ñu leen amee ba pare ñoom ci seen bopp tey mun nañ ñu boole ñeneen ak ñeneen tournoi bi gën a am doole. kon donc tey boo fi jékki-jékki rek nga génn nga dem xooli ñeneen am fi leneen da day mel ni da ngay déplané sax sa waa gox comme da nga fa may bëgg a waxee ma donc li ci li ci gàttal daal huitième édition bii ñu jëm bépp sportif boo xamante ne mu ngi fii ci Malika na fexe mu góor góorlu xam nga mu ñëw jàpp ci tournoi bi moo xam nam ci war a jàppee moo xam xalaat la moo xam xam nga xam nga moo xam moyen la moo xam moo xam nu mu ci mën a jàppee mu jàppale xale yi waxuma leen waa Yafine Production chaque jour dama koy wax ba man bu ma am seen dërëm nañ ma ne Moussa xale yi lan la ñuy lan la ñuy euh, buñ gañee lan la ñuy lan la ñuy am wala wala su ngeen di football la ngeen bëgg wala la ngeen bëgg si ñun ñun nañ ñu laaj loolu rek ñu wax leen après ñoom ñu ñëw doon suñuy partenaire ñu si signé comprendre nga donc loolu la lépp looy wax nii xamal ne ñun dox nañ ko donc ci whatsapp lañ defee affaire yëpp ren waaye promo bi mën naa ne yaa ngi comprendre loolu rek moo ko tardel stade bi rek moo ko tardel ndax ñëpp waxoon nañu stade bi stade bi stade bi stade bi même ba ci booy sax dañu ne nañ cotiser ñoom ñu dem fay après ñun ñu football foofu eh, ci bi man na leen garaawul gars yi samay gaañ lañu incha allah dinañ ma dinañ ma bi noonu laa amee woon yaakaar mais dama dama sama yaakaar dafa tas jour bi ñuy euh, jour bi monsieur le maire di di ubbi affaire yi ah jour boobu noonu amul amul koo xamante ne xam nga jëluñu ko karatéka yi fa doon ñëw école de football yi xam nga képp ku fa doon ñëw ngay def prestation jël na la yónnee la vidéo te ñoom yëguñu si dara. yéen a couvrir woon ouverture bi. yow xanaa yow déggoo li ma la wax yow mi sax est-ce que tàllal luñ la micro yow yaa ngi ci ngi ci biir Modou Faye Modou Faye tàllal na la micro yow ci sa bopp yéen ñi fa ñëwoon ñëpp tàllal nañ leen ay micro ñun ñoo ko def. Moustapha Moustapha mi dëkkoon tey Moustapha euh, Moustapha kii Sow moom moo moo doon introsé monsieur le maire ba léegi sax image yaa ngi ci YouTube bi mais loolu noonu yëpp nit ki di ko def. waaw mais mais mais mais yaa fi ne Moussa yaa fi ne donc je pense que li ngay li ngay li ngay ñaxtu nii euh, yaakaar naa Malika bi yëpp ñu ngi koy ñaxtu ah Malika bi ñu ngi koy ñaxtu parce que euh, képp képp ku tourné ah donc foo foo foo nit mu ne la stade bi kii donc xajaluñ ci kenn donc stade bi dañ ko tënk ci benn boor parce que li ngay wax nii presque Malika bi yëpp ñu ngi koy wax. ah donc donc je pense que ak liggéey bi ngeen fa liggéey tamit il temps il est temps tamit. Euh, waa Malika euh, ñu ñu jéem a xool naka la ñuy def pour pour pour surtout parce que Yafine Production Malika la dëkk dëkkul Guédiawaye dëkkul Pikine dëkkul Kër Massar euh, donc Yafine Production donc fii la ñu dëkk uh-huh. fii la ñuy yeewoo bés bu uh-huh. nekk uh-huh. donc je pense que boo leen demee tey ba ba ba soxloo soxla stade bi yaakaar naa war ngeen mun a am ku ouverture bi war ngeen mun a am yoon bi nga xam ne bu bu gaaw pour pour ñu jox leen stade bi. Mhm. Euh, ngeen ngeen def ci ci ci ci euh, ci euh, ci seen organisation bi ngeen bëgg. pourquoi pas donc donc donc c'est normal. mais mais je pense que mais est-ce que jotul jotul tey pour huitième édition bi bi kii bi ngeen di waajal est-ce que est-ce que jotul ngeen teel a jug donc teel parce que ci Malika Malika ngeen bokk stade bi. seen stade la suñu stade la ñu ñëpp donc ñu ñun waa Malika donc il est temps ngeen ngeen ngeen teel a préparer jug. dem doxi loolu pour bu ko defee euh, li leen gàllankoor ci septième euh, septième édition bi mu bañ a répété waat ci ci ci huitième édition bi. waa bon xam nga yooyu yaa ma may wax teel a jóg xam nga 4 novembre déggoo li mu daal le 4 novembre lañ dugal ñu demande man toog naa bureau Khadim mbay am benn boy bu fa ñëw di loué stade bi Khadim Mbaye ne ko kañ ngeen ko soxla mu ne ko demee Khadim Mbaye laaj ko xaalisam mais ku def 4 le 4 novembre. le 4 novembre lañ ko def ba 9 décembre ñun mënuñoo am date kooku am na ku jël le vingt le vingt quatre mais est ce que comme euh, euh, euh, est ce que comme nekkul. est ce que nekkul ñàkk a joxe gi moo moo moo tax mu am négligence ou bien donc je pense que je pense que loolu tamit. mu ngi ci biir parce que. tey yéen yéen dem ngeen laaj Malika ngeen dëkk. ngeen dem laaj donc je pense que képp ku dëkk Malika soxla stade bi je pense que est ce que dañ lay laaj kii koppar boo loo war a joxe. waaw mais. mais xam nga tey ñun lu ñu dépassé fii nii wax naa ko man du ko wax li ñu dépassé fii nii kay jël na stade bi une semaine jël na stade bi une semaine la azim. est-ce que euh, euh, est-ce que nekkul euh, ñi nga xam ne dañuy ñëw di laaj di fay di di di fay est-ce que du ñooñu ñooñu la ñu gën a privilégié. parce que parce que Malika yëpp loolu la ñuy kaas ah. ñun demande de prêt lañ def waaw Malika yëpp loolu la ñuy kaas. xam naa loolu la quoi ñun demande de prêt lañ def non de prêt maanaam abbu dañoo abbu demande boo xamante ne abbu la. parce que dañu def demande boo xamante ne ma yow yaay nag yow yaay wax aaluñu la. waaw parce que li ngeen di li ngeen di ñaxtu nii. waaw yéen kese Malika bi yëpp. waaw waaw comme boo soxlaa donc da ngay daw a daw daw ba dee. donc euh, euh, ñeneen ñi nga xam ne dëkk ñu fi bu ñu bu ñu soxla ñu ñu ñëw ñu am euh, ñu am ñu am yi vite fait facilement mais bu dee ñu dëkk Malika dañuy am problème. waaw léegi nag comme loolu la nag léegi xam nga xam nga xam sport wala wala wala wala wala yu noonu. bu mu tax rek nga jékki-jékki rek gis nga luy am na ñu koy wax am ñu koy wax souvent man moom du ma ko wax am ñu koy ci président Macky Sall am ñu koy am ñu koy wax ñeneen xamuñu ko ñun yaa fi moo tax ñu fal ko am na ñoo xam loolu la ñuy wax waa dañuy ne yaa fi sës moo tax ñu fal ko parce que Abdoulaye Wade lañ bëggoon mu jóge fi kut kooku te moom moo xam nga te moom te moom moo fi sës moo tax ñu fal ko xam nga Sénégal day def ñoom dañuy doxalee noonu gaw ma nag li ñu wax quoi man sama yoon newul si loolu mais nag ay rumeur la ko gars yi dañ koy wax gis nga yu mel noonu daf fi bëri maanaam fii yaa fi sës moo tax ñu lay fal peut-être loolu la mais bu fekkente ni parce que man gis naa Khadim mbay xam naa ni sportif la ku yàgg ci mbir yi la comprendre nga ku ñu war a respecté ci affaire bi la wax dëgg yàlla te suñu grand bu baax la amul benn problème si ñun du dëgg waaye nag dafa am gestion yoo xamante ne boo ko yoree ah foog nit ñi di wax pour ngay comprendre yaa fi na production. pour ngay xam fooy teg sa merci beaucoup. lii ñaax la xam nga mos naa déglu euh, sama soxna sax laa fekk mu koy déglu quoi benn benn kilifa mu ne léegi-léegi bari na nit ñi ñëw di kaas di la wax loo xamante ne xam nga buggoo ko di lay xas mu ne bul jàpp ñoom dañ lay xas moom jàppal ne ñii lii ñu may wax ne bu fekkee dëgg la dama ka war a bàyyi voilà yàlla mooy waxee ak yow mais bu fekkente ni nag du dëgg nag jàppal ni mën ngaa mel noonu ci sa ci sa carrière nga éviter ko kon dara bonu fi lépp lu la nit ñi wax rek encaissé te xam na yow yàlla moom moo la teg ci bopp boobu. parce que yaa jiitu merci beaucoup. Euh, te tey boo boo demee tey ba ba ba ba ba ba yoree senior tey senior yi nga yor noonu ñuy fubal euh, euh, ñi ñuy fubal ñoom ay xale la ñu woon donc dañ leen préparé donc donc ça veut dire que ñoom dañoo war a dañoo war a fixé wu ci base bi. ci mhm. base bi te mhm. yaakaar na yaa fi ne production donc euh, ci ci ci base bi la la la la la tegee bëtam mhm. donc pour pour jàppale kii euh, feeñal xale yooyu noonu pour euh, pour ñu gis leen fépp pour ku leen soxla jël leen. waaw yaakaar naa loolu mooy bit bi. lu leer tey boo seete am na benn boy bu fi nekk boo xamante ne mën na li muy def mooy booy Diop Diop. su ñu Moussa foo waxee ñu ne la booy boobu moo ko doon toj mais tey. li mu am ci tournoi bi. tournoi bi lancé na ko tamit merci beaucoup bokk na ci lu ko ci lu ko lancé gardien bu nekk gardien daara ji daara ji Seydou. kii euh, Seydou. moom bi mu ñëw si ñun nee na Moussa man man man nekkuma woon football kat mais moo jëloon meilleur gardien ci ci année boobu première édition. amuñu woon góol voilà amuñu woon gool rek mu góolu mais day <coughs> bale ma mun na nekk tey ne day wax toujours waa yaa fi production ñoo def góol mais tey moom moo woro a mais waaye yaa fi ne production xoolal ci la jaar ba nekk meilleur gardien. ñu ñu mais actuellement il fait partie des des des meilleurs gardiens ici à Malika. waaw am na ñeneen i boo fi nekk ci football ci nawetaan bi am na ñu nekk ci maf boo yooyu jaar nañ ci tournoi toj fa dem seen yoon. comprendre nga fi ma bëgg a waxee kon ñooñu noonu loolu noonu yow yow li ngay liggéeyal sa askan ak li ngay génnee ci talent booy yi loolu moom mënuñu koo fay. si des moom mooy lenn rek nga man yow yaa nekk ci bopp bi yow yaa nekk ci njit gi nga fexe yaa ngi dégg ni ngay valoriser ci mbir mi te nga bañ a jàpp tamit Moussa yaa fi ne wala nga bañ a jàpp ni yaa fi ne production moo ko moom jàppal ni man maa ko moom sama malika la samay tuttànk la comprendre nga war naa cee participer xaaral ma ñëw participer ci. waaw ah, mais je pense que euh, euh, donc dem ngeen ba tollu fii dem ngeen ba tollu fii euh, ci ci ci ci tournoi bi donc je pense que amatul dellu ginnaaw que amatul dellu ginnaaw ca kanam rek lañ jëm. ah donc je pense que kii donc fu mu ne nii amul découragé. ah ah fu ne nii. fu mu ne nii fu mu nii amul découragé donc je pense que yéen war ngeen mën a gë gën a gën dem ba ci biir a biir a biir a biir parce que Malika euh, stade Malika suñu stade la donc je pense que euh, war ngeen war ngeen mun a euh, réorganiser waat ngeen demaat taxawaat bu ëllëgee kii boo leen soxlaa stade bi parce que amul amul découragé parce que li nga wax ni sànq rek. li li nga wax ni sànq rek dafa solo parce que am na ci boo yoo xam ne kii wax dëgg fa yàlla tournoi bi bokk na ci li leen lancé. Mhm. sa sa sànq wax nga ko Diop. Euh, Seydou ak ñeneen ak ñeneen. Euh, même booy quartier yi fii. Euh, kii ñoom ñoom Émile. Mm-hmm. ñoom ñoom ñoom ci lañ bokk. donc booy bëri jaar nañ ci ñoom Papi. Eh, donc donc booy booy yëpp jaar nañ ci waa daara ji tamit tey ñoom Blaise ah ñoo ñoom Jooja ñoo ñëpp géew nañ ci tournoi bi bi bi ñu bi ñu nekk bi ñu nekk ay xale yu ndaw mm. donc je pense que tournoi bi ah, am na am na ampleur bu bu bu extraordinaire mm. am na objectif bu bu bu bu baax boo xam ne ñëpp fu mu ne nii Malika bi yëpp ñëpp ci war a dugal seen loxo ñëpp ñëpp ci war a jàpp jàppale Yafine Production. Mhm. donc donc je pense que doo leen baisser les baisser mhm. donc vous allez continuer jusqu'au bout. Mhm. Euh, jusqu'à la fin des temps. je peux dire. waaw yaakaar naa loolu la quoi. Euh, bon euh, waaw découragé moom man moom su ma naree découragé rek bàyyi xam naa damay wax ngeen ñëw lam ma noonu rek ngeen yóbbu ma ci armée lay quoi man découragé xaw ma ko quoi te ku koy def tamit dama la ciy génnee nit du découragé quoi. Euh, ndax loolu gëmadi yàlla suñu borom la sax euh, huitième édition bi nee naa la moom la ñuy waajal nii booy yi léegi ñu defaarate leen beneen publicité xam nga bu leen xamal ne dañoo war a def seen inscription bu boobaa yow Alex mi yow na ngay nekk ci biir te di nga xam nañ koy doxalee donc euh, di wax ni rek en tout man moom li ma gën a bëgg rek moom mooy huitième édition bii ñu jëm képp koo xamante ne mu ngi Malika ngay sportif ngay tamit ngay yëngu tamit ci côté éducation rek pas sportif kese parce que man mii man mii du ma sportif man mi koy organiser man du ma sportif ah. non non non non sportif nga. parce que da nga daan football fi ma bëgg a waxee fi ma bëgg a waxee moom mooy man. monsieur la maa ngi def yeneen xam nga président label Yafina production la maa ngi def ay film def ay théâtre def yeneen ak yeneen donc canaliser wu ma sama bopp rek ci sport du dëgg sport at ba at la sport bi tournoi bi at ba at la décembre léegi am. kon donc man mun naa ne man du may sportif yeneen sportif yaa ngi subaa ngoon guddeeg bëccëg ñu ngi ci kon donc ñooñ laay waxal ak ñi nga xamante ne ay acteurs de développement lañ duñu ay artistes ñooñu ci seen bopp laay waxal nañu fexe huitième édition bi ñu dóorandoo ko ensemble ñun ñëpp ñu xool man de damay ragal sax président président woo ñu man loolu loolu laay ragal ko xam nga lu tax parce que dafa am lu solo loo xamante ni ñoom dañ ko wumpale xam nga tey ñu ngi xeex violence sànq waxoon naa la ko naa la ko wax gis nga ñun violence bi suñu ci woowoon ñoom seen violence boobu ñuy xeex suñu ci woowoon parce que booy yu bëri dañ ñu respecté du du paaka mënuñu ko fi dindi sax mais tey gis nga supporter yooyu nga di supporter di saaga wóor na yàlla bu ma ñëw bu ñu man bu ma ñëwee ci ñoom di filmer xam nga damay dem foofu di filmer wallaahi azim booy dañuy bàyyi seen saaga yi di ma woy moom lañ may supporter naa leen jox vidéo incha allah booy booy dama leen parce que da ngay xam ne ñii dañoo am cër booy yi réewuñu boy yi réewuñu bonuñu soxoruñu mais nag état bi nga leen di tegal la ñoom man maanaam fi nga leen di teg condition yi nga leen di teg ak di leen napp ak di leen yuuxu ak di leen def yenn yi ñoom booy loolu moo leen di xonet loo wala arbitre yi daf leen lu leen neexul ba noppi njiit yi war leen war leen jàppale encouragé leen duñ duñ ko def booy yi tamit xonet di saaga di indi ay xeex nit boo ko boo bëggee mu bàyyi mu bàyyi li muy def da koy respecté gis nga ñoom ñoom ñoom ñoom pourtant man maay organiser man xam nga démb ay policiers ñëwoon nañ mais man su ma taxawee ci terrain bi man maa koy man maay doon sama sécurité bopp su ma ñëwee ku nekk dama am man problème xoolal sept ans koy def amul benn problème bu ma mos am mos am nag bu ndaw nag wax dëgg yàlla te kooku nag ñàkk xam rek la woon xam nga kon donc sept ans am benn loolu moom xam nga xam nga ni kon liggéey la kon donc li may wax rek mooy violence yi ñuy xeex si seen bopp dama kay dama leen di lancer ay message pour que ñoom ñu xam ni violence bi mun na fi wàññeeku même bu jeexul nit ñi nañu wootante xam nga nit ñi ku nekk sànni sa xalaat ñu xool na la ñuy jéem a eh, xoolee ni ñu fexee ba violence bi jóge fi ndax ñun lool la ñuy xeete ñun am nañ ko. léegi euh, euh, ci ci ci naka ngeen fas yéenee euh, préparé wu ci ci huitième édition bi ba nga xam ne ki erreur yi ci yi ci amoon mbala retard yi ci amoon mu mu bañ a répété parce que football tamit ça demande ki l'organisation. Euh, complète euh, l'organisation euh, bu extraordinaire parce que football loolu lay laaj donc je pense que war ngeen mun a gën a teel a préparé wu même stade bi ngay wax ngeen teel ngeen teel a def teelaata def demande donc amul découragé teelaata def demande pour pour bu ko defee huitième édition bi mu bu ñëwee mu mu mu débuté du début jusqu'à la fin comme ni ngeen ko bëggee. bëggee woon mu mu mu am mu am mu bañ am benn problème benn rëkk-rëkk benn gàllankoor. ok waaw moom Alex moom. Euh, li ñuy wax ci stade bi bëri na trop mais nag pour gàttal rek dama ne stade bi ñun nit ñi defoon rek la ñuy defaat man bi may organiser ba fu mu toll nii damay def damay demande damay def samay démarche man dama respecté kayit label bi sax am na ay kayitam lépp lu ñuy def gis nga autorisation policiers yi ñëwoon nañ fi man lépp lu may def ay kayit laa ciy wuti kon ni ñu ni ñu defoon noonu rek la ñuy defaat ci stade bi gis suñ ko amee fa xayrun suñ ko amul ñu ñëw suñu miineel ga rek terrain ya jorgo booy booy booy booy dafa lu rafet affaire bi amul amul kii quoi yow amal objectif bi rek li ma bañ li ma bañ ci booy yi pour ñu def ko nañ ko def rek man loolu moo ci loolu moo ci amal solo leneen li nag yéen yéen seen bëgg-bëgg la man sama bëgg-bëgg la bëgg-bëgg xale yi la suñ ko amee fa xayrun suñ ko amul tamit ñu xam ne yàlla suñu borom nii la ko tuddee. donc affaire stade bi moom nii rek laa koy naa koy doxee. léegi ci côté arbitre yi tamit pour huitième édition bi. côté arbitre yi mos naa ci woo kii Euh, Diouf Diouf waaw ni ñu koy wax ne waay oh, waay waay waay prince prince mos naa ko ko wax ba mu ne daf may boole ak ay arbitre yu nekk xaw ma fan ba ma jotoon woo leen sax lépp rek ci won la ni ñun bàyyiwuñu dara lépp nu muy professionnel rek ñu ngi ciy jéem a dem mais nag voilà loolu la quoi maanaam doole moo yombul donc loolu moom moo waral xam nga euh, mu demee nii donc di wax ni rek en tout cas euh, rafetlu nañ trop trop trop lii nii ndax tey Alex. lii bu amul woon peut-être ñu bëri duñu xam man gars yi dañ may wax waxal waxal waxal musaa xoolal Moussa bu xam na yenn yi da ngay wax nanga mën a leen saway man di may wax maa ngi koy liggéey ci terrain bi li ma waroon wax maa ngi koy liggéey man léegi liñ ma tere stade bi nii wala liñ ma ko xañ wala liñ ma wala li mu fose man est que tere na ma def final bi final bi jàll na di. ah neexoon na de. waaw léegi li ci leneen. xumb na neex na terrain bi fees na. delloo leneen li ci des mooy xam nga mooy lan mooy di jéggalu mooy beneen équipe bi ah bi bi bi wul expérience foot ak jam ande muy samay boy yu baax. ku ci mel ni seex. non non mais mais mais mun mun nañ leen defaral. non non day am une petite finale. non day am day am mais nag mu leen di jéggalu parce que ñu ko préparé sonn ci xam nga sonn ci moom ak laay seex ak laay. xam nga damay teg njëgal bi rek ci seen loxo ñu jox ma ñu ah, jox ma bëggoon mu rafet rek voilà voilà vraiment vraiment waaw a dëj yi am mu tax ma guddee mais leneen li nag moom mooy euh, tamit xam naa ni mm, émission bi comme mu ngi waa jeex gis naa sa waay mu lay signalé xam nga mais euh, leneen li mooy euh, dëkk bi dafa am dafa am maanaam diine ju mat sëkk fii nii ndax ñun bi fi ñëwee ba léegi daanaka sax bokk na ci lu ñu defar xam nga loolu yëpp day baax ñi ñi di ko wax quoi ñun kunaas lañ jógee Pikine lu ne lañ daan def lu ne lañ daan def ci lépp lu ñaaw ci li jeune di def ñun dañ ko daan def comprendre nga mais bi ñu ñëwee fii dëkk bi daf ñoo defar dañoo dem ba xam réalité yi dëkk bi di doxee kenn du fi tox kenn du fi nangam nangam non loolu moo ñu defar quoi te ñun ay ndongo daara lañ kon boo seetee dëkk bi defar nañu loolu moo tax sax li yenent bi taggee lu yàlla taggee yenente bi ñun moom mooy objectif objectif tournoi bi maanaam daf daf ko taggee ci jikkoom yu gën a rafet innaka la ala xuluqin azim loolu la ko taggee comme loolu la ko taggee ñun ci base boobu la ñu ñëwee te dëkk bi tamit dëkk na dëkk la dëkk Seydina Limaam Laay la démb nag bi affaire bi di am wala samedi métti na ma trop bëgg ma woon mu am ci bis boobu parce que dañoo xewle woon ñun ñoom ñoom euh, ci seen bopp wala ñun ñëpp bokk waaye nag ñu bëggoon koo bàyyi waaye renvoi yi dafa bari dañ koo renvoyé lu bari ba boy boo waxee renvoi sax booy yi dañuy ne dañuy dañ leen di nax ma ne kon ñu obligé def ko rek comme ñun tamit ci jixaat lañ nekk nañ organiser ñu def ko rek kon donc ñu ngi ñu ngi ñu ngi leen ciy jégalu bu baax ñoom kilifa euh, laayeen yëpp xam nga rawatina ki nga xamante ne moom mooy euh, niñ koy waxatee euh, ki nekk ci waaw ah sëñ Bay laay sëñ Bay waaw sama sëñ Bay sama frère la sama nit la sama sëriñ la lépp lu ma am bala ma koy def damay dem ba ci moom ma tàgg ko wax ko ko wax na ma ñaanal kon bésam. bu ko amee normalement dama waroon bàyyi lépp lu ma doon def mu ñëw ci bisam mais comme defuma ko nag maa ngi koy jégalu bu baax di ko ñaanal tamit yàlla nañu yàlla def ñu fekkee ko ay déwén yu bëree bëri wasalaamaaleykum rahmatullah voilà euh, donc euh, di di la di di la jaajëfal bu baax a baax a baax a baax a baax euh, ak ak sa staff Yafine production donc donc Moussa Yafine lañ fi seet si woon di waxtaan ak moom lu jëm lu jëmoon ci ci tournoi bi muy organisé at bu nekk muy muy bu am bu am ampleur bu am doole donc waxtaan nañ ci moom euh, waxtaan bu am solo solo bu solo donc euh, wax na ci tamit euh, li li li lim ci gis loo xam ne kontaan na ci wax na tamit lim ci gis loo xam ne des na wax na wax na tamit lim ci gis loo xam ne xaw na ko nakari tuuti mais adduna noonu la tëddee donc je pense que kaddu yi rafet na donc ñu ñu koy jaajëfal baax baax di ko ñaanal yàlla rek ak staffam yëpp yal na lii continuer yal yal na yal na gën a naat yal na gën a yaatu yal na gën a jur leneen ak leneen ak yaanu ndam TV yaa ngi ok merci beaucoup c'est donc seen émission la woon euh, euh, émission Buzz Sport donc euh, di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di leen wax rek ne donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax donc à la prochaine. merci beaucoup.